kaddu gi comme que dañ ko libéraliser Sénégal am am ñëpp am liberté kaddu mënuñ seetaan nag ñu toujours ñuy wax ñun ñu noppi ëllëg ku ci nekk dana am responsabilité ci li am ci réew mi dañuy wax nag lu ëpp tuur Ousmane Sonko saaga na président Macky Sall ba tàyyi kenn déggul président Macky Sall ton saaga na juge yi juge yi waxuñu dara saaga na saaga na ñëpp ñu àndul ak moom ñun ñi waxuñu dara saaga nag fuutanke yëpp kenn waxul dara tey nag mbir mi dafay bëgg ëpp armée Sénégal li façon lu nga xam ne objet de consensus national la ci force politique yëpp mooy benn leader politique ci Sénégal mosul jéem dugg ci mbirum armée ndaxte armée mooy sédimenter not demo not république mooy sécuriser suñu république et pour la première fois ñu gis benn leader politique bu jóg ndaxte rek yaa ngi bëgg àgg ci nguur ngay attaque armée di ci dugal lu nga xam ne dara bokk ci lépp bu ñuy ngeen baal ma kàddu gi lépp nekk ay kàcc ci kese wax ni ah France dafa jóge foofu dafa génn ci république du Mali ma jàpp ni sax booy wax Mali nga xam ni Mali ñëpp xam nañu suñu histoire ñu bokk histoire ñu ñëpp ñu nekk benn mu nekk le même dans deux états booy wax ci Mali nga war cee def ndànk nga war cee maandu fàtte woon na ni Sénégal moo jiitu France ca Mali ndaxte Sénégal ànd nag CEDEAO balaa Union africaine balaa Nations Unies ñëw di fa dugg kon Sénégal mébétam ak doxaliinam ca Mali ñëpp xam nañu utum jàmm la te image bi gën a fra frappante mooy président de la république mu demee Màkka ngeen gis des citoyennes maliennes topp ko. di ko ne président ñu ngi lay ñaan nga intervenir ba Mali ñu am jàmm loolu rek doy na confiance bu nga xam ne Afrique moo ko séddale président Macky Sall bëgg a jaxase xel yi bëgg a jaxase xel yi moom xam na ni gaa France nu mu nekkee une république souveraine noonu la prés Sénégal nekkee une république souveraine xam na ni gaa tooñuñu kenn waxuñu kenn président Macky Sall bi mu nekkee président ba tey. ñëpp xam nañu l'Afrique a retrouvé sa dignité dans le quota mondial amul benn réew amul benn réew tey buy tey Afrique bu ngeen xoolee même ci guerre Ukraine ak Russie role bi ci Afrique joué Afrique mosu koo joué loolu nag fierté la ci Sénégal fierté la ci ci Afrique loolu bëgg ko nasaxal bëgg a ni ci France la ñu topp saaga Sénégal la saaga armée Sénégal la parce que dafa jaawatle ay militaire yu fa toog war a dellu seen kër ñeneen awu leen foofu loolu la xamul naka lay fonctionner mu gis rek ay militaires yi ngi ñibbisi xamul ni militaires yu ñibbisi yeneen militaires yi ngi leen di remplacer et Sénégal mosul jóge ca Mali parce que tant Mali amul jàmm Sénégal du am jàmm waaye loolu yëpp attaqué juge yi attaqué président de la République tey attaqué armée loolu yëpp ñun ñëpp xam nañ lan la annoncé candidature alors que waxtaanoo ak sa parti parce que jàpp nañu ne parti yëpp war na am tuuti démocratie interne parce que booy bu ñu ubbi dañuy ubbi candidature yi ci parti yi ba pare annonce ay candidature du élection présidentielle moo ko intéressé élection député élection locale jeex na waxatuñu élection locale parce que moom ci élection la dund élection législative jeex na waxatuñu élection législative yaakaar na ni mën na laxasu ci ay élection pour que digganteem Adji Sarr ni bañ koo leeral ñun de waxuñ ñi Ousmane Sonko moo tooñ waxuñ ni Adji Sarr moo tooñ dañoo wax ni dañoo wax ni justice nañ ko rendre na attekat yi wax fan na dëgg féete bu dee Ousmane Sonko moo am dëgg na ko attekat yi wax bu dee Adji Sarr moo wax dëgg na ko yi wax loolu lañ la laaj la mënuñ am tey suñu camarade de parti bu nga xam ni yàgg nañu ànd ak moom mu nekk responsable ca Fatick nekkoon fii directeur général bu COUD nekk responsable bu mag ñu accuser ko yu mel noonu. te muy défendre ni moom ba tey defu ci dara ñu tëj ko ñu bàyyi ñeneen ñi accuser de la même chose ñuy doxantu di saaga ay président de la république ak ay armée dañoo bëgg que les citoyens soient au même pied dañoo bëgg que les soit soient et que Adji Sarr comme tous les citoyens du Sénégal a droit à la justice bu loolu paree nag ñu doog a wax ay élections présidentielles yu nga xam ne c'est dans 18 mois bu ñu installé assemblée nationale ba pare président installé gouvernement mën nañu wax après élection élection présidentielle àggaguñ fa waxtu liggéey la ñu nekk waxtu continuer li nga xam ne président Macky Sall mu ngi koy tabax ci réew mi te président Macky Sall li mu dirigé dirigé wul rek Benno Bokk Yaakaar président Macky Sall dafa dirigé benn kan bu ñuy tuddee le camp de la construction beneen camp ba nag xaw ma kan moo ko jiite mais le camp de la destruction. merci ma gërëm seen sant jox farba mu àggali.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 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax